kii page Facebook am ne dina daal di bokk ca ñaxtu boobee nga xam ne nag fas yéene nañu ko defal waa Palestine ci tooñaange gi nga xam ne nag mi ngi tegu ci seen kaw mu di euh, te jii ci samedi 31 août 2024 bu 15 heures jotee moom jiital Pastef waaye itam di premier ministre bu Sénégal nee na dana daal di teew foofe ndéem sob na buur bi yàlla ngir ñaxtu. coono yooyee nga xam ne nag euh, waa Israël ñoo ngi koy daal di teg suñu mbokk euh, jullit yee nga xam ne nag ñoom ñoo di waa Palestine moom jiital Pastef waaye itam euh, di chef de gouvernement moom nag daal di lay xam ne dana ca daldi teew ngir naqarlu mbir mu ni mel.